Euh, donc ñun euh, waa FRAPP ñoo woote conférence de presse bi di ko animé avec la présence euh, euh, des travailleurs de VFS maa ngi xaar ba léegi caméra yi j'essaie de gagner du temps en disant quelques mots en attendant que caméraman yi pare donc VFS mooy. Euh, Euh, visa facilitation euh, service defe naa ñu bëri ci yéen euh, xam ngeen VFS parce que yéen ku xool seen kanam xam ne ñu tàmm tukki ngeen visa facilitation service defe naa moo nekk ci immeuble bu nekk seen wetu mm-hmm, seen wetu benn collègue la je crois que waa Seneweb ci immeuble boobu lañu nekk mooy sur la route de Ouakam immeuble bi Seneweb nekk. et je crois que immeuble boobu la VFS nekk donc visa facilitation service ñoom ñooy toppatoo lépp luy visa espace Schengen donc disons Union européenne moins quelques pays ak euh, et autres ñoom ñooy toppatoo lépp lu jëm ci visa Schengen et autres ci autres yi Chine ci la bokk et cetera peut donc dañoo ñëwoon tey kon euh, pour waxtaanee. Euh, situation VFS boobu ci wàll nu muy doxalee ak liggéeykat yi ak xëy na xool euh, ak euh, ak demandeur de visa yi mais surtout ni muy doxalee ak ay liggéeykatam dafa mel ni waaw donc xëy na di ñaan ñëpp ñu def seen portable vibreur donc euh, ngir portable yi bañ a sonné ñu bugg a woote euh, ñu jàppale ñu ñu dem ñu dem répondre plutôt euh, ci biti donc di leen di gërëm ci teewaay bi et donc comme ni ma ko waxee VFS mu ngi tekk mu ngi tekki visa facilitation service waaye wax ji mooy est-ce que bu ñu xoolee ni muy doxalee euh, tekkiwul vol facilitation service vol mooy sàcc visa facilitation service la tudd waaye est-ce que mënuñu ko woowee vol facilitation service euh, société indienne la waaye xëy na sax loolu bariwul solo bi nga xam ne comme ni ma ko waxee. mooy toppatoo lépp lu jëm ci wàllu visa Schengen Chine ak ñoom seen lu tax ñu ne euh, VFS dootuñu ko woowee visa facilitation service waaye vol facilitation service lañ koy woowee ndaxte société boobu nga xam ne képp kuy dem France képp kuy dem Espagne képp kuy dem Italie képp kuy dem Chine foofu ngay dem déposer sa demande de visa. dañoo jàpp ne taxawaayam dafay sàcc liggéeykat yi nga xam ne ñoom ñoo fa nekk lu tax ndaxte benn liggéeykat yi fa nekk ngir am congé 24 jours ouvrables yu mot jafe na ndaxte société bi dina def dina wax dina def dina wax ba sa 24 jours du mat yenn saay sax dina mun yenn saay sax au lieu de 24 jours nga def 18 jours fukki fan ak ñett de congé ñu jàpp ne loolu sàcc la ñaareel bi mooy heure supplémentaire liggéeykat yi munoo muusa ko waane ba heure supplémentaire yu mat sëkk ñu fay la ko dinañ ut ay lay dinañ ut ay lay ba duñu ñu fay heure supplémentaire wala bu ñu waree fa fay fukk ñu fay ñaar wala ñetti waxtu ñetteel bi mooy euh, weer bu nekk liggéeykat yi dañuy am ay bonus ay prime ay prime mensuelle prime yooyu prime liggéeykat yi la waaye direction ba nekk ca bopp VFS day fexe ba moom direction bi mu am pàcc bu mu jël ci prime yi nga xam ne prime mu employé yi la li ci des mu bàyyil ko employé yi ñeenteel bi mooy société boobu li fay dox mooy assurance pour liggéeykat yi mu ngi couvrir rek liggéeykat bi ak jëkkëram wala jabaram ak ñaari doom boo amee ñetti doom sa ñetteel doom bokk ci boo amee ñeenti doom sa doom bokk ci waaw ñu jàpp nag ne VFS boobu xam naa ne xamul ne Sénégal la nekk VFS boobu xamul ne Afrique la nekk ndaxte boo bëggee gis ay famille yu am ñaari doom na nga dem implanté wu Europe na nga dem implanté wu états uni te foofu sax foog naa ne ah di fa fekk ay famille yoo xam ne ëpp na ñaari doom kon mënoo ñëw implanté wu Afrique munoo ñëw implanté wu senegal di liggéey nga naan ay pàpp yaay doom pàpp yaay ñaari doom ngay assuré ñeneen ñi nag kan moo leen di assuré te li ci metti mooy balaay VFS di sanc boo bëggee visa court séjour quarante mille ngay fay maanaam juróom-ñetti junni parce que jamono jooju ci ambassade yi nga doon dem directement boo bëggee visa long séjour soixante cinq mille ngay fay maanaam fukki junni ak ñett soixante cinq mille waaye VFS bu mu ñëwee ba léegi donc mu dox diggante. demandeur de visa yi ak ambassade yi da ngay fay juróom-ñetti junni yi bu dee court séjour fay fukki junni ak ñett bu dee long séjour waaye nga teg ci dix-huit mille cinq cent pour frais VFS treize mille quatre cent bu dee da nga bëgg a déposer sa demande de visa mu gaaw parce que defe naa loolu mooy salle loolu mooy salle premium ak cent cinquante francs pour SMS bi nga xam ne moom moo lay xamal ne euh, sa passeport disponible na euh, te yenn saay sax SMS boobu da nga koy yéex a jot donc xam ngeen ne xaalis xaalis euh, xaalis la société boobu di liggéey lii gën a firndeel ne xaalis la société boobu di liggéey mooy boo jëlee jamono yi nga xam ne moo dox diggante weeru mai ak weeru août société bi VFS dina def bés bu nekk lu jege lu ëpp en tout cas autour de juróomi téeméeri euh, autour de juróom téeméeri dossier demande de visa lay traité bés bu nekk bu ñu jàppoon ne 500 demande de visa le société boobu di traité bés bu nekk xool leen rek bu fekkee 500 yëpp euh, visa court séjour la ñuy déposé maanaam 40 000 francs nga multiplier ko par 500 dossiers. xam nga ne loolu en fait xaalis bu bari la nga jàpp ne c'est du mois de mai au mois d'août xaalis boobu yépp nag liggéeykat yi di ko liggéey employés yi di ko liggéey euh, bruit bi ça vous dérange euh, waaw mun ngeen tëj bunt bi bon il fait déjà frais hein et puis xam nga amuñu amuñu fond politique nga naan métal clim yow itam yaa ko tey xaalis boobu yépp nga xam ne liggéeykat yi ñoo koy liggéey feeñul ci liggéeykat yi ndaxte comme ni ma leen ko waxee heure supplémentaire dinañ xool xool ba duñ la ko fay congé dinañ xool xool xool xool ba au lieu de vingt quatre jours ouvrable ngay def ay ñaar fukki fan wala sax yenn saay fukki fan ak juróom-ñett wax naa leen nag assurance bi nu muy demee fexe nañ daal lay nañ daal ba pàpp yaay ñaari doom la ñuy euh, la ñuy jël en charge waaw mais li ci gën a doy moo di ne bi VFS di commencé ay yëngu-yënguwam fii ci Sénégal liggéeykat yi mu njëkk signeel seen salaire bu njëkk seen salaire de base deux cent cinquante mille la woon waaye liggéeykat ya ca topp mu commencé di leen di fay salaire de base cent cinquante mil kon VFS di gën di am xaalis liggéeykat yi di gën di ndóol euh, li ci doy nag moo di ne ci jamono coronavirus bi waaw dëgg la ñun ñëpp xam nañ ne coronavirus bi dafa impact ay société xam naa sax jamono coronavirus bi voyage yi wàññeeku na loolu yëpp xel mu xëy na mën na ko nangu voyage yi wàññeeku na. donc demandeur de visa yi wàññeeku na ak ñoom seen donc mun nañ comprendre ne euh, dëkk dëkk tugal yi nga xam ne dañ doon tëj seen frontière ndax xeex coronavirus dëkk yooyu mënatuñ fa dem donc dëkk yooyu demande de visa yi de daal di wàññeeku loolu yëpp xel mën na ko nangu waaye état du Sénégal jël benn dogal benn ordonnance ne ak coronavirus bëggatuñu ñu dàq benn employé benn ñaareel bi chômage technique sax dañ koy waxtaanee te bu fekkee mënul ñàkk ci benn entreprise chômage technique payoor bi mënul gën a tuuti téeméer boo jël ci payoor bi juróom-ñaar fukk maanaam 70 pour cent di salaire bi coronavirus amee VFS ne mbas mi dafa impacté yëngu-yëngu woon mu nekkoon day def chômage technique waaye li ci doy ci chômage technique bi mooy dafa commencé di fay 70 pour cent des salaires mujjantel bi muy fay 50 pour cent mujjantel bi sax muy pay trente pour cent des salaires 30 pour cent des salaires lu mu mun fay dégg ngeen sànq li ma leen wax liggéeykat yi njëkk yi nga xam ne ñu ngi nekkoon ci boîte bi seen salaire de base 250 000 la woon ñi leen fekk si 150 000 la woon. cent cinquante mille déjà boo ko xaajee ñaar cent quinze mille la soixante quinze mille bu fekkee da ngaa dëkk Pikine nga war a dem liggéeyi xaw ma VFS soixante quinze mille xanaa paas bi sax matul ñu naan déet cinquante pour cent de de cent cinquante mille tuuti na nga naan trente pour cent trente pour cent di salaire de cent cinquante mille ah ngeen jàpp ne loolu dëgg la ngay fay liggéeykat moins de soixante quinze pour cent mu mel nii moins de 70 pour cent mu mel nii VFS boobu dafa amoon jubluwaay dafa amoon fu mu bëggoon jëm ndaxte liggéeykat boo demee ba di ko fay 30 pour cent de son salaire yow dafa mel nii da ngaa bëgg a da bëgg dàq liggéeykat bi mu demal boppam. dafa mel nii da ngay buntu xatal liggéeykat bi ngir mu demal boppam bëgg nga ko dàq waaye yow bëggoo jël dogal bi da nga koy nax danga koy naxaral da nga koy méccital da nga koy toroxal. ci bërëbu liggéeykaayam ngir moom mu demal boppam ndaxte loolu mooy 30 pour cent de salaire loolu nag ñu koy ñaawlu ñuy interpeller état du Sénégal ndaxte moom moo génne woon këyit ne même chômage technique ba mënul ñàkk lu gën a tuuti lu gën a yées lu ñu mun fay li entreprise boo xam ne mbas mi da ko laal lu gën a yées li mu mun fay liggéeykatam mooy téeméer boo jël 70 pour cent état bi nag toog na seetaan. ba entreprise bii di VFS di fay ba ci 30 pour cent ana état du Sénégal waaw bu fekkee pour matraquer état du Sénégal mu ngi fi bu fekkee pour gazer état du Sénégal mu ngi fi bu fekkee pour jàpp tëj état du Sénégal mu ngi fi waaye bu fekkee pour aar askanu Sénégal pour aar liggéeykat yi nekk Sénégal état du Sénégal abonné absent ba ay patron voyou ay patron bandit di fay 30 pour cent du salaire ñu ne déet mu ñëw ne day def licenciement pour motif économique licenciement pour motif économique boobu jaarul yoon dafa ñëw rek ne waaw man tànn naa juróomi liggéeykat yoo xam ne naa leen def licenciement pour motif économique ñu ne ko déet loolu mënul nekk mu ne kon cinquante pour cent des travailleurs naa leen yóbbu ci licenciement pour motif économique waaye mujjanteel bi juróom la si tànn juróomi liggéeykat mu ne leen ah VFSD mënatul fay ni mu doon fayee waxtaanu si wanewul ci lan la teg mu ne mënatul fay liggéeykat yi loolu mu ngi am euh, ay mois de décembre mu ñëw ne dañuy def départ négocié waaye départ négocié boo xam ne amul benn négociation ak liggéeykat yi ñëw rek bugg leen imposer dara liggéeykat yi ne ñoo lànk ñoo bañ départ négocié mooy départ waxtaan donc nañu lal waxtaan nañu lal waxtaan nañu lal waxtaan waa VFS ne ñoo lànk duñu waxtaan finalement mujjantel bi ñeenti fan ci janvier 2021 bi ñu licencié seen juróomi liggéeykat te balaay le 4 janvier 2021 bi ci mois de décembre VFS viré liggéeykat yooyu xaalis boo xam ne liggéey ëpp na seen payoor liggéeykat yi naan waaw lii lu mu doon kon mooy li ma doon wax dafa mel ni liggéey dafa mel ni VFS dafa amoon plan de liquidation de liggéeykat yi nga xam ne saay bu ñoo amee ñooy wax waaw ni Macky sàll saay bu amee ñoo xam ne ñooy dut baaraam li askan wi di sonn di jéem a liquider diw jàppee diw tëj diw nëbb jant diw mu mel ni kon VFS ci loolu la nekkoon ak liggéeykat yi liggéeykat yi nga xam ne délégué di personnel yi ne pat ne teg fekk liggéeykat VFS ñu ngi torox moom ay liggéeykat yoo xam ne ce sont des liggéeykat dignes am jom am fulla am fayda du naan petit ñu cible liggéeykat yooyu versel leen xaalis cinquante compte ba pare ay fan ci kanam ñeenti fan ci weeru janvier 2021 bii passé ñu ne leen dàq nañ leen mais li gën a ñaaw ci chômage technique bi li gën a ñaaw ci licenciement bi moo di ne chômage technique ci ñëpp la métti wax dëgg yàlla licenciement ci ñëpp la métti waaye nag boo nekkee ci entreprise boo xam ne dafa am ay contrat à durée indéterminée yi ak ay contrat à durée déterminée CDD waaw quand même booy def chômage technique dafa am choix bi ngay def booy def licenciement dafa am choix bi ngay def yi bokkul ak CDD boo nekkee entreprise boo xam ne liggéeykat yii dañoo am jabar ak doom am jëkkër ak doom mu am ay célibataire dafa am choix bi ngay def dama koy baamtuwaat licenciement ci ñëpp la métti waaye xel mën na nangu genn wàll kasara moo gën kasara célibataire amul jabar amul doom ak jigéen boo xam ne mu ngi ci entreprise bi am jëkkër am ay doom bu licenciement mënul ñàkk ah foog naa ne bu dee gën wàll kasara moo gën kasara célibataire bi lañuy bàyyi donte métti na VFS deful loolu ñi mu dàq ñépp juróomi liggéeykat yépp ay CD ay CD yi la ñoom ñépp ay père ak mère de famille lañu fekk ne amoon na ay célibataire foofu fekk ne amoon na ay CDD foofu fekk ne amoon na sax ay CDD yoo xam ne lu leen dese pour mu jeex bëriwul naka ngay licencier CDI bàyyi CDD boo xam ne lu ko fa dese bëriwul donc mu mel ni kon réglement de compte boobu ma doon wax plan de liquidation boobu ma doon wax ah bu fekkoon c'était un plan rampant plan bi nag 4 janvier plan bi taxaw na temm wane boppam mais li ci gën a ñaaw ci licenciement bi xam ngeen mooy lan li ma wax ni yëpp ñaaw na mais ci juróom yi nga xam ne dàq nañ leen amoon na benn jigéen bu ëmb ñi xam code du travail xam nañ ne kenn du licencier jigéen bu ëmb le 4 janvier 2021 VFS ci juróomi liggéeykat yi mu dàq ñoom ñëpp mu dàq leen ci anam bi ma wane te mu ñaaw dëppowul ak yoon amoon na jigéen bu ëmb mbokk yi bu ñu seetaanee ci Sénégal ñuy toroxal liggéeykat ñu naan déet ñuy salfaañee sañ-sañu liggéeykat ñu naan déet waaye ñuy salfaañee liggéeykat yu jigéen yi jamono yi nga xam ne dañoo ëmb mbokk yi suñu Sénégal bi day yàqu te lii waruñu ko seetaan waruñu seetaan liggéeykat yi ñu leen di toroxal te mu am ministre du travail fii ci Sénégal wax ji mooy ana ministre du travail dafa mel ni fii Sénégal ministre du chômage moo fi am ministre des arriérés de salaire moo fi am ministre des licenciements arbitraires ak injuste moo fi am ndaxte licenciement bii licenciement arbitraire la jaarul yoon jaay doole la licenciement liquidation la licenciement pour dàq ñoo xam ne ci biir entreprise bi waaw dañ doon wax te yàlla tax dañ doon wax te njëriñu liggéeykat yi tax donc ñu dàq si benn jigéen boo xam ne dafa ëmboon te entreprise bi xamoon na ne liggéeykat boobu dafa ëmboon mbokk yi tey la 30 mars waaw ñu ngi ci njeextelu weeru mars waaw xëy na cent 365 jours yépp dama jàpp ne euh, ñett ñetti téeméeru fan yépp ay fanu jigéen lañu waaye weeru mars moo gënati fort encore xam ngeen ne waruñu toroxal jigéen waaw ah, waruñu sax toroxal góor waaye bu tànn di am man jàpp naa ne nañu toroxal góor bàyyi jigéen bu tànn di am damay naan xëy na nañu toroxal jigéen te bàyyi jigéen bu ëmb lii ñaaw na lii du dëgg du yoon te waruñu ko seetaan ndaxte lii bu amee ça veut que xëy na mu ngi am feneen xëy na amoon na feneen ñuy licencier ay jigéen yoo xam ne dañoo ëmb ah ñaanu ma ko yàlla sama xarit Adja mu ngi fi ak sama yeneen xarit yi yoo xam ne xëy na masque bi tax na xàmmee ma leen waruñu seetaan lii ndaxte lii raam ñuy toog di ko seetaan ah fu mu jëm euh, ba kii baaxul ana inspection du travail inspection du travail dafa mel ni amatul ci réew mi inspection des patrons voyous la inspection pour les patrons bandits la euh, lii mooy li nga xam ne moom la ñu waxoon fii moo ñu indi woon fii et donc bu ñu sañoon mbir mi du egg tribunal bu ñu sañoon tribunal du àtte bu ñu sañoon VFS day toog waxtaan ak juróomi liggéeykat yi nga xam ne moo leen tooñ ñu waxtaan ba déggoo ndaxte tooñ na leen ba ci kanamu yàlla tooñ nañ leen ba ci kanamu askanu Sénégal yépp ndaxte lii mënuñu ko seetaan te lii du kenn moo ñu ko teg lu dul suñu ñi nga xam ne ñun ñoo leen fal ñu ñàkk fayda di seetaan ay patron voyou di def lu leen neex patron yépp nag du ñu ay patron voyou nee naa leen entreprise bi entreprise indienne indienne la patron yépp du ñu patron voyou waaye tamit bu ñu seetaanee ay patron sénégalais di toroxal seen moroomu doomu Sénégal waaw waaw mun nañ nangu di gis ay patron doxandem di ñëw toroxal doomu Sénégal doomu Afrique fii ci Afrique fii ci Sénégal waaw parce que ñun waa FRAPP nag mu suñu wax ne dëmm tubaab la dañoo ne dëmm nooteel la mu suñu wax ne dëmm français la dañoo ne dëmm mu ngi sant nooteel te nooteel nag am na ay patron nit yu ñuul ni ñun sant Sagna jàlloo Tall waaw ak ñoom seen ni ñun ay patron yu sant ni ñun ñuul kukk ni ñun di toroxal ñi nga xam ne ñoom la ñu bokkal réew mi ñoom la ñu bokkal maanaam continent yi donc bu mu bu mu jaaxal kenn bu fekkee patron yu weex tàll wala yu xonq cur fii la ñuy ñëw di ñu toroxal et donc nooteel nootel la amul dafa weex dañ koy dénoncer mu ñuul ñu ne pat donc ñu ngi interpeller président de la république Macky Sall ñu ngi interpeller gouvernement wa di interpeller ki nga xam ne moom mooy ministre du travail mënatuñu nangu ñuy licencier ay femmes enceintes. ay femmes yu ëmb ay femmes ay jigéen yu wan na lor mënatuñ ko seetaan mënatuñu nangu ñuy licencier comme sax ay travailleurs euh, VFS nag comme ni ma ko waxee waaw bëgg nañ waxtaan ak moom ñu ngi ñaan mu toog ak juróomi euh, juróomi liggéeykatam woowu euh, juróomi ex travailleur yi ñu waxtaan ak ñoom ba trouver ay terrain d'entente ñun nag waa FRAPP waxuñu lii mooy saafara bi lii du saafara bi liggéeykat yi lu ñu d'accord ak VFS ñun d'accord nañ ci ak VFS waaw liggéeykat yi mu dàq li ñu d'accord ak VFS ñun ànd nañ ci ak ñoom waaye lu liggéeykat yi nanguwul ñun duñ ci d'accord comme ni ma ko waxee VFS moo tooñ VFS na xool nu mu koy régler bu ko réglé nag ah ñun dinañ xolaat ni ñuy def ndaxte nag ñun Afrique ñun senegal ñu ngi commencé ñàkk fayda déjà visa yi ñu ñuy fayloo du dëgg du yoon. waaw ñoom fu leen neex ñu bàyyeekoo ñëw Afrique ñëw Sénégal du ñu fay visa ñun pour dem ci ñoom ñu war a fay visa ndaxte nag bu ñu waxee VFS wax ambassade réew yi nga xam ne ñoo ñuy fayloo visa pour dugg seen biir réew te ñenn ci ñoom rawatina waa tugal bu ñuy ñëw ci ñun du ñu fay visa. benn ñu ñuy fayloo visa ndax ñàkk fayda bi suñu bu suñu autorités yi ñàkk fayda ñaar ñu naan déet ñu ñuy fayloo visa di noot suñu ay liggéeykat di noot suñu ay mbokk africain di noot suñu ay mbokk sénégalais di noot ay jigéen rawatina ay jigéen yu ëmb loolu kilifa yi nañ ko régler ci nii wala ci ñaar VFS na waxtaan ak liggéeykat yi rapidement sinon ah dinañ xool naka la ñuy waxtaanee benn ak liggéeykat yi ñaar naka la ñuy defee une campagne bu dul rek campagne nationale waaw ba ñu ña si ba si saisir BIT di interpeller nag lay syndicats et les centrales syndicales ndaxte kat syndicat tum ranke na ci Sénégal centrale syndicale tum ranke na ci Sénégal waaw ni ministre du travail tum ranke mel ni amul ni inspection du travail tum ranke mel ni amul. wa ilaa mu mel nii dañoo ànd ak borom doole yi patron yi noonu la syndicat tumuraanke jamono ji Sénégal noonu la centrale syndicale tumuraanke jamono ji Sénégal donc nañu gaaw a régler jafe-jafe bi ñaareel bi ak waa VF ak euh, ak juróomi liggéeykat yi VFS na waxtaan ak ñoom ci nu mu gën a gaawee négociation yi mu bañoon jamono ji nga xam ne ñu nga fa woon na négociation yi commencé ndaxte comme ni ñu koy waxee un mauvais arrangement vaut mieux mais qu'un bon procès ñun nag bañu ñu waxtaan bañu ñu waxtaan waaye nag li ngeen ñu def métti na yéen waa VFS métti na ñu ba ci kanamu yàlla te bu VFS nekkee entreprise indienne ay indien war nañ fàttaliku bandum indien yi war nañ fàttaliku bandum africain yi war nañ fàttaliku bandum maanaam africain warul mës a def lu ñaaw indien warul musa def lu ñaaw ay pays du sud waaw ndaxte lu ñu boole lu yàgg la waaye tamit indien warul def lu ñaaw africain waaw boo fàttalikuwee bandung rek boo fàttalikuwee bandung rek yéen indien yi waru leen def lu ñaaw africain yi waaye lii yépp nag comme ni ma ko waxee président Macky Sall la gouvernement wam ak ministre des ministre des licenciements ministre des arriérés de salaire ministre des violations des droits syndicaux waaw ministre du chômage au lieu de ministre du travail waaw inspection des licenciements inspection des arriérés de salaire inspection xawma euh, des licenciements arbitraires inspection du chômage au lieu d' inspection du travail lii moo fi am Sénégal ministre des patrons voyous des patrons bandits au lieu de ministre du travail inspection des patrons voyous inspection des patrons bandits au lieu de inspection du travail lii moo fi am Sénégal donc euh, mbokk yi lii moo ñu fi indi woon te lii dal waa VFS mu ngi dal yeneen ak yeneen entreprise GCO entreprise bi nga xam ne moom mooy def zircon fële ca jogo dégg ngeen ay licenciement am Brioche Dorée dégg ngeen ay liggéeykatam am nañ fa jafe-jafe euh, ABS dégg ngeen jafe-jafe yi liggéeykat yi am Excelec Sigelec dégg ngeen jafe-jafe yi nga xam ne moo am fii Manco nga xam ne mu ngi bokk euh, di dison ci SGBS dégg ngeen itam jafe-jafe liggéeykat yi nga yi nga xam ne ñoo nekk foofu King fat Palace teeru bi dégg ngeen licenciement yi nga xam ne moo fa am daanaka dafa mel ni liggéeykatu senegal mosul gën a tumranke jamono président Macky Sall 1960 ak léegi kan nag moo ñuy wàllu kan mooy wàllu liggéeykat yi kenn du leen wàllu ku dul seen bopp kenn du wallu liggéeykat yi ku dul seen bopp ak askanu Sénégal kenn du ñu wàllu ku dul suñu bopp donc liggéeykat yi nañu am full ak fayda syndicat yi nga xam ne ay syndicat la yoo xam ne encaissé cekof lañ fi nekkee encaissé xaalis premier mai encaissé xawma des enveloppes en espèces sonnantes et trébuchantes encaissé xaalisu xawma euh, pacte de stabilité sociale subvention de l'État xaw ma 300 millions yi nga xam ne ñun ñëpp ñoo koy dégg syndicat yi nga xam ne nekkewuñ fi lu dul ñu créer ay institutions aussi inutiles que budgétivores ñu am fa place am place conseil économique social et environnemental am place xaw ma HCCT ak fan ak fan ak ci conseil d'administration yi syndicat yooyu liggéeykat yi nañu am full ak fayda te dëddu leen syndicat yooyu liggéeykat yi nañu am ful ak fayda xeex ci biir dàq seen njiit yi nga xam ne nekkee wuñ fi lu dul njaaloo ak patron voyou yi njaaloo ak patron bandi yi ëllëg ñu waxal liggéeykat yi ñuy wax ak patron yi nekkee wuñ fi lu dul njaaloo ak ak état bi ëllëg ñu wax ak li nga xam ne moom mooy euh, liggéeykat yi